Malang Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk président wu rescapé du naufrage du bateau le Joola. Euh, mhm. septembre bi ñuy fàttalikuwaat drame bi nga xam ne amoon na fii ci Sénégal. ah euh, ay nit yu bëree bëri daal di desoon si si géej gi yow nga mhm. bokk duggoon si bato bi euh, tey ji mhm. en tant que euh, rescapé lan nga ñu mën a wax si souvenir yi nga xam ne am nga ko si bato le Joola wala maa ngi leen di nuyu di leen sant man maay tudd Malang Badji man maay président rescapé yi mooy ñu rëccoon ci bato bi souvenir bu ci am mooy bi ma doon tëdd ba guddi xale bu yuuxoo rek daf may yóbbu ci bato bi parce que bato bi buñ ci génnee ba toog ci kawam boo daan fëgg am na ñu lay tontu ci ay yuuxu ci guddi bi day mel ni film film horreur xam nuñ koy waxee ci olof léegi boo euh, daan fëgg bato bi yuuxu yi day dem ba changé ba mel ni yi day aw day aw mel ni nit ki day wax ñaari yoon nga xam ne fii kenn nekko fi ñun ñokka ñi dudd ñi ne ci biir ñuy yuuxu noonu boo dañ doon fëgg pour ñu jox leen yaakaar ni am na ñuy ñëw pour sowe leen pour ñu bañ a bàyyeek loolu la ñu jublu woon moo tax ñu daan tëgg nii bu buñ ko boo jëlee paaka bi benn tubaab moo yoroon paaka bu fëggoon nii rek da ngay dégg ñoo ñoom tamit ñu fëgg wala ñu tontu ci ay yuuxu yuuxu yooyu ñoo ma doon sonal bu njëkk ba mais jëmm jamono bi ma demee ba am soxna am samay doom yuuxu xale yi yàlla def tamit mu génnee ko ci man ndànk-ndànk ak liggéey bi may def sport bi yooyu voilà. Mhm. Euh, bato bi euh, Malang jour boobu lan moola si dugaloon est-ce que danga nga tàmmoon di jël bato la Joola wala c'était la première fois. boobu mooy sama bu njëkk bato bi daan naa dem ba jege ko ni à quinze mètres ci port bi ñuy jaay suñuy màgg jaay suñuy furi ba pare dellu suñu dëkk conke si ma dëkk mais keroog laa ko dóor a jën li ma fa yóbbu mooy bi bato bi mosuma ci dugg ma ne moom pour la première fois tamit ma ñam bato bi lu may dégg bi nga ne dama doon ba tiim ko nii te du ma ci yéeg mu nekk ubbite classe man ma defoon transfert pour ñëw jàng euh, lycée Malick Sy de Thiès léegi bi ma kiiwee ma yóbbante sama biir bi sama mag mu jëndal ma biir bi ma xëy bés bi jógee conke siin jël sept place dem Ziguinchor dem këram jël bi dem ba port fekk fa ay nit ñu li fa taxoon nit ñi kii parce que am na ñi ñu ñu a jël tali mais ay fan yu néew si ginnaaw mu amoon ay samba booy yi leen karoon ci yoon bi mooy ñu naan braquage mm. mooy samba booy yi doon yor seen i gànnaay moo taxoon nit ñi tiit ñu déggee bateau bi commencé na ñu bëri ñu bëggoon jaar ci tali bi ñu fomm daa di jël bateau bi bateau bi dafa fees dell mm-hmm. waaw noonu la fa demee kon yow da ngay da ngay dëggal ñi doon ñiy wax ne euh, bato bi bu suuxee c'est parce que surcharge bi moo taxoon maanaam li mu defoon moo ëpp si nit looloo tax bato bi suux. dam koy dëggal parce que bato bi waroon a jël bu dee si je me si les chiffres téeméeri mu jël li ëpp ñeenti téeméeri xam nga ni loolu moo ko moo ko moo ko te bato bi dafa wengoon. Mhm. dafa wengoon. dafa wengoon mhm. donc euh, qui fait que loolu moo ko moo ko poussé ngelaw bi ñëw ak taw bi ngelaw bi pousse ko bu côté côté côté droite jëm gauche te gauche la la wengeewoon ñu egg karabat ñu chargé waat ay bagage parce que bato bi dafa toog lu yàgg ñu bëri ñi ci yaakaaro ñu la navette entre Casamance ak Ziguinchor commerce mhm. boobu jamonoy màdd la ak màng mhm. ak tol keroog li ma bagage musuma koo gis bagage parce bagage yi dafa doon late parce que dafa doon ni ngeen ko waxee jaratul parce que ñoom mënuñu ko jënd ñoom soxlawuñu ko Dakar lañ ko mën a. Dakar rek waaw. Mm. donc bato biir taw bi da doon accosté dafa dafa dafa dafa accosté Carabane di dugal di dugal di dugal te côté boobu bu mu dugal côté boobu nag moo weng xam naa bagage yi encore bu ñu ko dugalee mu gën a weng nag léegi bu muy jógee Carabane di dem bato bi dafa weng côté gauche. Mm-hmm. léegi nag ngelaw bi jógee ci dëkk bi maanaam mu pousse bato bi ci côté droite jëm gauche bu muy bu mu wengee looloo précipité bato bi mu weng mu mu këpp mais mais mais yow mala naka nga def ba ba ci ci bato bi ba ba nekk rescapé man bu muy taw mm. dama duggoon ci restaurant bi restaurant bi aw ma fa yoon parce que sama ticket bi mooy suuf mais bi ma fa duggee sama benn xarit sama cousin wax ni ñaasi moo ñu jaarale ma ci foofu ne escalier yi difficilement mhm. ba benn euh, sécurité sax bloqué ñu mais comme miin nañ miin nañ ko mu ne sama rakk la dama am lu ma koy woon ci kaw mhm. léegi ci noonu lañ def ba dem ci kaw mais bu muy taw ñu wàcc ci restaurant bi amuñu fu ñuy toog parce que amuñu fa yoon dañoo mujjee toog sax si suuf mhm. léegi nag affaire bi bu muy wengal bu muy kii rek mu jékki-jékki rek nga dégg bum rek lamp yi tàkk lamp yi fay tàkk man leen ma ma may mel ne ku ci xam dara man leen toog leen bato bi dara du ko ko kii parce que dafa def benn yoon rek mu ñëwaat. Hmm. même nu mu defee benn yëngatu benn yoon rek ni gis rek am na ay ay ay kaas yi nekkoon ci kii bi du wet mu mu mu commencé nga nga veer yi tajaloo rek toj mu defaat loolu rek ba duwet bi daal di këpp léegi jëmbe yi fa nekk recommencé daanu man nag dama jege woon benn table ci laa accroché wu maag benn bi buñ ko seerewuloon rek kon tey duñ fi nekk di wax comme table bi dañ ko serré encastré ko rek ma ma jafandu ma maag benn mu yuuxu woy sama ndey woy sama ndey bu mu mujjee bàyyi bu mu bàyyee rek ci laa simmi samay tal rek accroché wu rek yéeg ci table bi jot fenêtre bi fenêtre bi mi ngi yoon à un mètre cinquante quelque chose comme ci la yaakaar damay tëb rek kon su ma fa yéexoon rek ndox mi fekk ma foofu damaa génn fenêtre bi yen ci ndox mi fekk fa ay nit ñu ci biir ndox mi ndeke ñenn ñi dañoo tëb te mënuñu fay mm-hmm. di jafandu ci man di jafandu ci man ma ne non comme dañ ma ëpp doole mu nuur ba ci biir simmeeku mu simmeeku comme ni ma judoo mhm. foo ma jàpp ma rëcc boo ma ëppee doole boo may kot rek damay nuuru boo nuuru rek ku mu fee da lay bàyyi mhm. ça ce bi pêcheur lañ mhm. léegi ci laa reculer ci noonu ci noonu ci ñëpp dem parce que boobu dañ doon xool kan mooy yéeg nan ba bu def foo ku nekk mi ngi xool nan ngay def ba yéeg ci kaw bato bi laata loolu dañ fa nekk xeex bu metti ku yéeg sa morom wàcce la ku yéeg sa morom la c'est le chose qui ñu dañ ma ëpp doole balaa ma fi naan doon mu reculer may def ay va-et-vient di ñëw ba yenn instant ma ñëw rek fekkuma fa kenn ku dul benn nit ci kaw bato bi mhm. ma koy laaj sëñ bi nan nga def ba yéeg xoolal muy lox di kat kat yi mënu mu sax tontu ba ñu mi ngay dégg mu ne kat kat muy lox mhm. mënu tontu may defaat ay va et vient may fii di dem di ñëw di dem di ñëw beneen yoon mu ñëw ma ne baa ma laajaat ko xëy na mu calmé mu ñëw di ko nan nga def ba yéeg nan laa téye nee rek gisuma kenn man boobu la commencé tiit nag parce que depuis bi lay wax ak yow boobu bi ma duggee ci bato bi bu accident bi amee yàlla dafa génnee tiitaange mhm. te looloo ma sobe. du njàmbaar du parce que ñi mënoon ñooy marin yi ñi nga xam ne doon leen doon formé pour ça. Mhm. des. ma ne la noonu def ba ma ñëwaatee rek gisuma fa kenn boobu laa commencé effondré wu commencé jooy ci biir ndox mi mm-hmm. Mm-hmm. ci biir taw bi ma ne ndax man dong maa rëcc ma xam ni que su doon man dong maa rëcc kon am naa problème parce mm-hmm. xam naa sama société bi ma bokk mooy joolaa day naan foo sama doom foo dugal suñu doom ana suñu doom yo no noo def bëre ci yow kese au lieu mu nekk euh, li nga xamante ni peut-être plus la mais day nekk poids ci nan nga def bëri ci yow doom foo dugal seen i doom la société dont mm. dont dont bi ma bokk mm-hmm. boobu laa mi dara tëwul ma jékki-jékki rek di fay rek di xalaat loolu di fay rek ñu ne mu leen passé passé par la droite passé par la droite tu parviendras à monter de ñun fu ñu nekkoon foofu nga doon a da nga doon ñëw rek mm-hmm. comme si euh, voilà ma yéeg man nag ma ne du ma a gore noonu laa taxaw ci kaw bato bi di di ci olof ci joolaa mm. man la ñëw leen yéeg fii mm. ci ci kaw bato bi ndeke ci ci à sept mètres comme ça vite y avait des marins ñeenti marins ñu accroché wu foofu ci kii bi mm. ci ci corde bi buum ñoom dañu yaakaar ne foofu moo gën a ci ñoom ay blessure wu kii bi vitre bi rëy na boo jëlee sa baaraam boo ci tegee rek mu dugg ndax da doon forcer vitre yi il allait se vider de suñu benn cousin léegi benn rescapé bu mu yéegee muy Moussa Sagna ñu jël paaka tubaab bi dagg sangli mooy sauvetage bi ñu sànni leen ko di leen eh, xëcc par kenn kenn xëcc par kenn kenn ci kaw loolu ci ba Mariama Diouf mi nga ne mel mi jigéen mu daal di féey ba yéeg ñe ci lañ toog di commencé deux trois quatre ba vingt quelque mais ci kaw loolu noonu lañ doon def ay bàyyi bi di sauver di indi par kenn kenn di yokk ñu ne ma ñeneen sax sëñ bi yow yaa ngi xool ne yow solo yëre ce que xam nga ni yow solo yëre ci lañ ma abal benn kilo ma sol ko. nga sol ci lañ ma abal benn kilo noonu lañ toog am fu ñu solo ba ci suba teel. la benn gaal moo ñëw yóbbu ci benn gaalu coréen. coréen dañ doon dee parce que ñu ne dañ doon woo kenn du leen tuy kenn du leen wuy kenn du leen wuy ñoom ñooñu indi ba embouchure fleuve Sénégal ci lañ daje la marine nationale vers seize heures par dix heures moins ñoom ñiy jëm ci bato bi ñu imagine ki doon daw ci bato depuis neuf heures ba seize heures passé ci jëm dix-sept pour dugg ci fleuve Gambie ci lañ daje ci lañ daje ak la marine nationale di jëm foofu xam nga ni foofu amatul yaakaar mm-hmm. luñ fay fekk xanaa bagage te am nañ avion am nañu ay hélico catégorie bu nekk nga gis ay avion di ñu ay hélico di naaw hélico yooyu yëpp keroog dañ ko clouer au contraire encore encore je encore général ba ba ba ba woon avion dem dem saint joxe ay médailles ci jéye bu toll ni bii dafa dummóoyu yoonu Ziguinchor mu jël yoonu kaw dem Saint-Louis pour euh, cérémonie de de remise de de de gala y' a problème de. Mhm. affaire bi noonu la fa demee mu triste trop. donc mu nekk histoire bu bu triste. Euh, tey jii kon Malang lan mooy situation wu bi rescapé yi di dund ak famille wu victime yi exactement. famille yi ñu ngi dund seen i dëj. ñeneen ñi mënuñoo def seen dëj parce que gisuñu koor. Mhm. parce que dañoo baaxoo nit bu deewee ñu jox la koor bi nga def sa moo tax ñu doon ñaan ñu génnee bato bi pour nit ñi jàpp ni foofu mooy seen cercueil. ñu defal leen seen béy dignement mais boobu ba léegi benn doléance lañ gis mu saafaraw mooy naan tabax bu ñu tabax musée bi musée bi ñu ko mais bokk na benn poñ la ci poñ yi ñu kii ñu ngi ñu ñaan ñu def justice parce que mënoo am jéey bi gën a rëy ci àdduna tëjuñu ci kenn sanctionné wuñu ci kenn ba pare ñu ñu ñu affaire bi nii raax ko nii rek suul raax nii la fa dem Euh, tey jii euh, comme euh, am ngeen akki euh, muy euh, peut-être musée bi ngeen di laaj renflouement bi si côté uh-huh. koppar état bi lim leen waroon jox yëpp jox na leen ko wala mala non des na reliquat des na reliquat je ne sais pas combien loolu suñu doyen yi chaque fois dañ ko doon wax mm-hmm. parce que bokk moom ci commission d'indemnisation parce que j'étais un peu jeune au lycée. Mhm. xaw exactement nu mu demee mais il reste un reliquat. ba léegi état bi nañu ci loolu sunu doléance yi sunu prise en charge médicale dematul parce que bu ñu ko boo boo amoon ordonnance da ngay dem ba Fann enregistré ko jóge dem building sixième étage enregistré ko dem euh, pharmacie Pasteur reféraat encore la même chose pour nga jot say garab c'était un marathon nga xamante ne a joxewul mayewul affaire bi noonu la demee woon bu metti sax euh, euh, Malang euh, fi ñu nii nag dafa mel ni sénégalais yi jàppuñ leçon wu bateau le Joola. jàppuñu ko benn yoon dans la mesure ci suba rek nga gis ko indiscipline bi ci tali mm. yi. di dàkkante gis nga état bi dafa dem sax ba ba ba horaire yi mooy nu mu yi dem muy interurbain mooy yi dem Casamance wala yi dem Saint-Louis ak yooyu ñu ne léegi dootuñu daw guddi mais tawul taxul ba tey ñi accident bi ñoom ñu ngi accident ñi ngi fi magalu Touba bi su lañ jóge nii gis nga nu nu mu ren j'ai j'ai pas eu le temps de de de d'écouter quoi exactement quoi ce qui s'est passé mais accident yi ñu ngi am ba tey indiscipline bi fi devant et au et au vu des des des des policiers ni la affaire bi dara jógewu fi jëluñu leçon ci naufrage léegi euh, dossier judiciaire bi nag euh, parce que maa ngi dégg sànq ngay wax affaire on réclame toujours euh, justice alors que la euh, le dossier Joola a été classé fële ca Paris ak fii aussi ci Sénégal lan moo waral kon ngeen di laaj ba léegi justice. waaw dañuy laaj justice parce que nañ ko mesurer ci ci bien que du mën ak yow jéyee bu gën a rëy nit kay bu dee kay dañu ne kay ñu éclaircir éclaircir la lanterne même bu nekkoon sax homicide involontaire parce que bato bi bu muy ñëw ay ministre la yeboon ñu ne ba dem ñu defoon premier ba dafa dem ba ci biir géej am problème au ñu amaare ko ñu tegaat ko donc du du du du tout du na responsable ñun dawaluñu ñun dañoo fay surveiller pour ndaw ticket sax boo ko ci oto ñu la oto bi demul munoo dawal oto bi hmm. donc ki ko dawal am na responsabilité ñi ko daw ñi ko ko dawal loo am nañu responsabilité ba léegi déggul kuñ ci jàpp ba tey jii nii léegi dernière question Malang rek juste une minute euh, euh anniversaire ren bi naka ngeen ko fas yéene féete 26 septembre. Euh, ren bon dañ ko jàppoon de manière spéciale parce que dañoo jàppoon bi ci weer yi passé ñu convier à tout le monde ñi am jot pour ñu ñu ñëw Ziguinchor parce que dañoo jàppoon ni dañ ko doon couplé ak euh, musée bi mooy euh, ubbite musée bi la dernière fois man foofu laa jógee démb sax laa ñibbisi dama demoon def mise en place bi recevoir le ministre de la culture monsieur Aliou Sow ñi nga xam koy rafetlu ci geste bu mu def envers les familles de victimes et les ñu fa war a delluwaat man mii demain demain matin encore foofu la war a fekk neuf avec le ministre des forces armées pour ñu dem pour la commémoration on avait convié la majorité des rescapés bi yoon pour ñu dem mën a fekkee parce que dañ jàppoon dañ ko doon def commémoration et inauguration mais dañ ko décalé euh, donc déjà à l'heure où je vous parle ñoom ñu sur place rescapés yi ñu sur place voilà. kon Malang ñu ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax. ci tontu bi ñu tontu si wàllum bateau le may fàttali ni Malang Badji yow euh, yow yaay président des rescapés du naufrage mhm. du bateau le Joola merci beaucoup. jërëjëf merci